xamé ne tey jii moom gis fi ci Arafat déjà ci marché euh, Arafat bi nga xamé ne tey jii nii moo nekk au niveau de Rufisque muy euh, ab jambe bo xamné dañ ko trouvé euh, ci yi nga xam ne tey jii nii ci hôpital ci oh non marché Arafat bi mu nekk lo xamé ne tey lu doy war la parce que tay xamu woon leen ko déjà may ko ñu ñëw may ma donc déjà ngeen gis ko ni ni donc déjà comme découverte mu nekk ab tank bo xamné gis neen ko fi donc mu nekk mbir bu doy waar donc ñu gis ko voilà voilà on l'a noté déjà donc déjà muy euh, lu doy waar loo xam ne gis neen ko fii muy ab tànk boo xam ne dañ ko dagg donc euh, xamuñu nag parce que ni ñu gisee tànk bi déjà am na ab bande boo xam ne moo ngi ci tànk bi donc mu nekk am ñu en même temps ñu takk ko ak li nga xam ne tey jii nii moo di euh, mën naa wax ay gants donc mu école lu doy mon mu nekk lu doy donc on dit que la police sera présente en ce moment mais on attend déjà donc euh, les éléments des sapeurs-pompiers parce que nekk na lu doy parce que aussi il faut même am constat après constat aussi il faut déjà ñu euh, euh, def li nga xamante ni les enquêtes qu'il faut pour mën a xam lan moo waral tànk bi nekk mais buñ suñu d'après ni ma leen wane image yi ngeen gis ko tànk bi tànk la donc mais li ñu gën a noté mooy euh, euh, li nga xam ne tey jii nii moo di ay bande bo xamné ne jii di mo nek ci tank bi hormis bande boobu nek ci gis neen ñu takké ko ak li nga xamné ne tey jii nii moo ay gants gants yeeg gants élastiques nga xamné ne waa hôpital ñoo ko donc je pense que ñu koy jaayee un peu partout ñu gis dal déjà euh, lolu dal mom lañu gis fi ci Arafat fi nga xamné modi marché Arafat mu nek ben découverte bo xamné dal daal doy war parce que euh, ëlëm na suñuy xel parce que tey jii bu ñu gisee ne à travers li nga xam ne moo fi jot a xew Sénégal yi ñuy dégg comme Sénégal njaxar yi yàgg am mooy bu ñu nekkee li nga xam ne tey jii moo di échéance électorale dañuy gis euh, li nga xam ne souvent arrière tour di ngeen ko gis ci image yi mu nekk ab tànk boo xam ne tànku mag la du tànku xale parce que bu ñu ko gisee noonu euh, ak yax bi nu mel noonu nekk na loo xam ne daal xaw na doy waar donc ngeen koy teewlu yi ñëpp fa la mën nekk ci àdduna ci ndam TV ñu jox leen li nga xam ne tey jii di moo di information bi tey lañ ñu woo sànq ci fi nga xam ne moom fi ñuy liggéeyee ne ñu dafa am benn euh, euh, euh, tànk bu ñu bu ñu bu ñu gis buñu ñu buñu bu ñu gis ci marché Arafat donc marché Arafat bi nak donc tay ñep ñëpp góor gisee ñep dañu genn fu mu nekk ni taxaw di xol li nga xamanté ji tey di li fay am parce que lii gëj na fay am wala mosu fay ama ah, mosu fay am donc je pense que mo ngi gis population bi ñom ñep genn donc mu nekk lo xam dal jaxal jaaxal na population mais aussi tital la li nga xam ne tey di la population rufisquoise donc mu nekk mbir bo xam dal doyna war ginnaw buñu gisé lepp lo xamé tey jii nii euh, euh, nekk na euh, suñu suñu suñu kanam ñu gis waa Sonaget déjà ñom lañu gis sen présence mais aussi ñoo ngi xaar aussi xaarane li nga xamné ne tey la présence de la police hein, pour ñu mëna xol ba xam mbir mi ana lan moko ko mais aussi est-ce que tey jii nii li nga xamné modi les éléments donc de Sonaget am droit jël li nga xamné modi moo je pense que amuñu droit bobu noonu donc waral wa police fu mu nekk ni wara débarquer pour mëna a wane li nga xamante ji nii moo fi am donc su fekkee ne

mais sànq comme ni ngeen ko gisee euh, mooy li nga xam ne moom la ñu gisandoo ñëpp mu nekk lu doy waar parce que tey c'est c'est plus que euh, euh, grave parce que mom la leen doon wax sànq tey échéance électorale bi ñu jëm mbir yi nga xam ñong ñoo ngi koy gis jëmale ci li nga xam tay tey merci ci li nga xam tay tey modi walum politique gis nañ ne jamono ji enlèvement yi nga xam amna au niveau des enfants ñu alerter ñu bari tay jii ñu gis ay faits yo xam amna donc tay bu fekkee ne gis neen tay jii ci marché bi nga xam modi marché Arafat ñu euh, gis si ab tànku nit donc dafay xaw a doy waar waxuñu ne dañu dëgg tankam wala waxuñu ne dafa dañ ko ray wala dara mais li ñu mën noté wu ah li ma mën gis man euh, témoigné ko moy tank bi dañ ko bandé en bande bo xamné bande bu blanc la bu weesoo bande bu blanc bi aussi euh, tank bi aussi dañ ko ci bande bi ci kaw dañ ko tak ak li nga xam ne tey jii nii euh euh gant gant élastique lañ ko takkee donc ngeen gis fi ni pôle bi waa taxaw ni ngeen gis fi la affaire bi nek waaw la affaire bi nekk donc sank xamna ñu njëkk dugg ci vidéo bi njëkk a commencé ba may commencé direct bi gis neen li nga xamé tay di jii lii moo bi donc mu nekk lu doy war ngeen gis déjà euh, gars yi ngi ni mais ba euh, amagu ñu la présence de la police mais japp neen ne euh, mu ngi ñoo ngi ñëw ñoo ci yoon bi di ñew pour xol li nga xamé tay di mo fi xew parce que nekk na lu doy war aussi ñoo ngi xaar aussi la présence des sapeurs pompiers pour ñu mëna xam déjà mbir mi ana lan moko soxé après enquête normalement la wara doon parce que fu mu nekk nii kenn mënu ci wax loo xamante ji nii lu sori la parce que li ko fi teg xamuñu ku ko fi indi xamuñu tànku kan la aussi xamuñu mais l'essentiel li ñu noté te gis ko mooy tànk bi tànku xale tànku mag la donc aussi mu nekk tànk boo xam ne dañ ko bande en blanc ah bande ko en blanc ba pare attaché ko ak li nga xamante ji nii moo di euh, euh, ay gants en élastique je pense que loolu mooy information bi nga xam ne amaguñ leen ko fii nii donc sans que bu fekkee euh, da ngeen xaw dañ ko kumpa tuuti <laughs> boo leen demee ci euh, début vidéo bi di ngeen gis tànk bi nu mu mel mu nekk loo xam ne daal doy na waar parce que tey jii nii euh, situation bi nga xam ne am na ci dëkk bi fu mu nekk nii ça dépasse déjà la population parce que maa ngi dégg sax ñu nekk ci suuf ñoo ngi commencé nguur nguur di tiit naan ba xam da ngeen téye leen seen i doom ak ainsi de suite parce que tey même bu fekkee ne sax c'est naturellement amputé dafay xaw a doy waar même bu fekkee c'est c'est naturellement amputé dafay xaw a doy waar parce que jamono ji gars yi tiit leen parce que enlèvement ñuy dégg lépp li nga xamante ji jëm na ci wàllum Sénégal ñun tàmm neen ko tàmm neen Sénégal heure bu ñu demee ci wàllum élection ñuy jàpp ne tey jii nii ay sacrifice ak ay yooyu noonu mais d'après li ma gisee tànk bi nii dafa amoon bandage xamuñu est-ce que tey jii nit ko xamne ne dafa am feebar diabète wala dara ñu amputé ko sanni fi même bu féké nit bu am feebar diabète la ñu dakk tank bi ñu ko sanni fi nga xamante ji moo si ay malit normalement am na fu ko war sul man am na fu ko war a yobbu mais bo xolé déjà tank bi ak ni ñu ko bandé mën nañ jàpp ne loolu la waaye nag xamaguñu parce que tay am na loo xam ne mënuñu njiitu li nga xamné ne les éléments de la police ñu njiitu li nga xamante ji moo les éléments des sapeurs pompiers parce que ñom ñoo yeeyoo joxe li nga xamante ji ni mo firndel li nga xamné ne moo tank bi après enquête normalement les waram donc je pense que mbir mi daal noonu la demee chers de Ndam TV mu nekk lu doy waar loo xam tey jii nii gis neen ko ah, fu ma ci jàkkaarloo nii foofu la tànk bi nekk muy li nga xam mooy dépotoiru ah, ñu ci Arafat fi nga ni marché Arafat mu nekk benn découverte boo xam ne mu xaw doy waar la parce que tey jii ab tànk ah, bu ñu gis ci marché bi donc amaana musu fi am mais tey bu amee dafay nekk loo xam ne lu doy waar la ñu gis population bi ñom ñep génn ñom ñep taxaw di sétane parce que tay nekk lu leen jaaxal parce que mosuñu gis lu ñu mel ci fi nga xam modi Arafat mosuñu gis lu ñu mel fi nga xam tamit modi di Rufisque donc tey jii bu da fay indi njàqare ak tiit bo xamé tay ji ni population bi ñong koy commencé diko dund parce que lo xamul xamoko donc je pense que nekk na lo xamé tay ji ni lu doy war la waaye aussi xam naa ne la police et euh, déjà les éléments des sapeurs-pompiers ne vont pas tarder à venir dans les lieux euh, notamment sûrement le préfet euh, sera là déjà pour les constats donc xam déjà ils vont pas tarder à venir parce que nek na lo xamé tay tey jii nii euh, na li nga xamné modi la population rufisquoise tiital na li nga xamné modi les habitants de de Arafat parce que nek na mbir bo xam dal musiba am donc euh, d'après information yi ñu am sank lañ ko jot mais tank bi dañ ko jël def ko ci ben seau bu jaune donc seau bu jaune lañ ko def donc je me prive de vous montrer les pieds mais déjà ñu montrer won len fi nga xamné ne fa la affaire bi nek donc pour vous donner euh, plus de d'information moo ngi ni si seau bi la jël tank bi def ko ci ni donc siwo bi ci la tank bi nek donc euh, comme ni ngeen ko gisee ci siwo bi euh, le tank bi nek donc mënuñu ko dindi di ngeen koy gis parce que il y a il y a des personnes yi nga xam donc dañ xawa dañ xawa sensible à travers déjà ces images moo tax ñu gëné wal leen ko mais siwo bi fa lañ jëlé tank bi def ko ci biir neub ko ak li nga xamé tay ji ni moo di euh, comme ni ngeen ko gisee euh di saaku bi donc mu nek dal lu doy war lo xamé tay ji ni dund neen ko gis neen ko fini nii à Rufisque li nga xamante ji moo di ci marché Arafat mu nekk mbir boo xam ne daal mbir bu doy waar la ah, boo xam ne daal macha allah nekk na loo xam ne tiital na population bi donc euh, am na loo xam ne tey jii nii nekk na daal ah, lu lu doy waar donc ñuy waa Sonaged ñoom ñoo ñëw nii euh, d'après euh, donc li ñu gis donc c'est le responsable ñoo ngi ñëw di xool est-ce que ils ont le droit de prendre li nga xamante ne jii nii moo di cette jambe pour sànni ko est-ce que dañ koy jël yóbbu ko yóbbu ko fi nga xam ne moo di police wala wala wala wala sapeur pompier est-ce que dañuy xaar les éléments des sapeur pompiers ñëw def constat def état des lieux sogo a mën jël li nga xamné tay di modi tank bi yobuko donc je pense que le plus normal moy ñu xaar les éléments des sapeurs-pompiers et de la police ñu ñëw def état des lieux def constat après constat bobu nonu ñu mën ko jël def ay enquêtes jëmale ci li nga xamné tay di ni modi li fi xew mu nekk lo xamné tamit lu doy war je pense que les éléments de SONAGED euh, dañuy jël une responsabilité génne li nga xamné modi euh, tank bi wala dañuy def constat donc je pense que dafay def constat aussi c'est ce qui est normal mu constat khar police ak élément de sapeur pompier union. après constat nous jël affaire bi après ça peut ils pourront ouvrir des enquêtes mener euh, sur euh, mener des enquêtes sur les nga xamante ji donc si vous venez de nous rejoindre sachez qu'on est à Rufisque au marché Arafat de Rufisque euh, bien sûr sur votre télévision Ndam TV pour vous donner déjà l'information en temps réel aujourd'hui cette information est une découverte macabre d'une jambe amputée euh, déjà ici euh, à Arafat, euh, comme vous le voyez au marché Arafat. au dépotoir de Sonaget donc li nga xamante ji nii moo di ma ñu wax ci kàllamay kocc xam naa ñi seetaan ñi déglu wolof moo ëpp mu nekk loo xam ne tey lu doy waar la peut-être bañ fa jegee ni amna na xet boo xam ne moo ngi doon dégager peut-être tank bi mo doon xeej nonou mais mu nek lo xam ne tey jii lu doy wax la ben tank euh buñu amputé tank bi nak moy ah, dañu amputé ci kaw buñu gissé gisee li nga xam ne moo di tànk bi lu mu mel moy om bi ci côté om bi lañ ko daggee donc mu nekk tibia bi ak cheville bi mais chair bi mon petit ci bi donc bi ci kaw gis peut-être parce que en phase de décomposition mais na en phase bi nga peut-être d'enflement donc peut-être constat lima gis wax bi bande en bande blanche mu en bande blanche aussi bande li nga xam aussi moo ap ap ap ap ap ap mën naa wax gant en gant en élastique moom lañ ko takkee mu nekk loo xam ne lu doy waar la wóoruñu ba xam dañu jël tànku ne dagg ko indi waaye bu ñu xoolee ni ñu takk takkee tànk bi ak ni ñu ko bandee nekk na loo xam ne tey ji lu doy waar la ñu def ko si benn soo bu jaune comme ni nga ko gisee mu xewee fi nga xam ne tey ji moo di Rufisque donc normalement donc les éléments de la police vont pas tarder à venir et les éléments des sapeurs pompiers bu fekkee ñoom ñëwuñu aussi peut être xam naa ne waa waa waa ñi nga xam ne moo di les éléments donc de Sonaget vont essayer peut être de faire quelque chose au cas échéant donc je pense que information depuis donc je pense que la police est-ce que est-ce qu'on a interpellé donc le police la police est-ce qu'on a interpellé le commissaire est-ce qu'on a interpellé aussi qui le préfet donc y a ay questions qu'on va se poser mais ça c'est de suite en ce moment entre les euh, les éléments de agent donc yi nga a des li nga du mais aussi la donc je pense qu'ils se concertent déjà pour peut-être relayer cette information mais nous en tant que média Ndam TV on est là pour relayer cette information pour vous donner l'information à temps réel comme vous le voyez donc c'est comme d'habitude euh, votre, euh, votre ami Sunubi euh, qui n'est plus reporter aujourd'hui, <laughs> qui a enfilé déjà le costume donc, du journaliste pour vous donner déjà l'information en comme vous le voyez. déjà information bi l'île la demee la xewee fi mu qui Arafat fi ngeen gis ma jàkkaarloo nii mooy fi nga nit ki mu nekk tànk boo xam ne dañ ko daggee ji depuis genou bi euh, mu band ko en bande blanche avec euh, benn euh, gant boo xam ne en élastique la ñu takkee ko ko mu nekk loo xam ne doy waar nag xaw a tiital déjà population bi ngeen gis ko ñii ñoom ñëpp dañu xaw a tiit xaw a jaaxle parce que lii musul am fii ci ci Arafat donc aussi mu nekk benn période boo xam ne période bu doy waar la parce que dañ dem ci li nga xam ne tey ji moo di échéance électorale ñoom daf leen di xaw a tiital même bu fekkee ne c'est naturellement amputé ñoom daf leen di xaw a tiital parce que dañuy jàpp ne benn ça comme souvent li nga xam ne mooy thème d'actualité mooy les sacrifices yi gars yi gis xalé yi ñuy enlever ainsi de suite xalé yi dagg sen loxo ainsi de suite ñom vite daf leen di daf leen di daf leen di remonter euh, vers ça donc cause pour laquelle ñom ñu génne njàqare ak it parce que li ni doy na waar ba léegi ñoom mënuñu fee bouger donc je pense que aussi la police que gisatuñu euh, sen sen téway donc si ci li nga xamné ne moo euh, euh, lieu bi aussi les éléments des sapeurs pompiers ñom ñoo habilité à dindi li nga xamné tay di modi tank mi nga xamné mo nek nekk fii après constat aussi ñu jox li nga xamné modi information bi la police bu boobaa la police ñom aussi bu ñu ñëwé jël li nga xamante ji nii moo modi mbir mi def ay enquête jëmale ci lool noonu inshallah Hein? Ok. Ah. Donc je pense qu'on va devoir arrêter. Donc je pense que pour noter une présence de euh, euh, de la police pour ñu ñëw aussi def li nga xam ne tey jii moo di mbir mi léegi léegi incha allah ñu ñëwaat ci information ci gën a